di mbokki àdduna maa ngi leen kenn ku nekk turam ak santam hmm? di leen wax ne euh, saa su ne maa ngi bëgg ci di leen ñaanal jàmm ak salaam hmm? gudd fan wérgi yaram wérle euh, tey nag euh, gars yi ki nga xamante ne mooy Modou Lo waajuram bu góor hmm, mu gën àdduna ñoo ngi koy jaale Sénégalais yëpp di ko jaale àdduna bi yëpp képp kuy mbër ñàkk nga képp kuy supporteru Modou Lo nga képp kuy Sénégalais aussi tamit ñàkk nga parce que waajur la waajur bu am solo waajur bu bu baax waajur bu bëgg njabootam bu uuf njabootam ba na ñoo ngi koy ñaanal suñu papa jooju yàlla na ko yàlla yërëm te xaari ko àjjana yi gën a kawe hmm, di jaale mbokk képp kuy Modou wala ku di jaale képp ki nga xamante ne rek supporteru Modou Lo nga ñu ngi la koy jaale di ko jaale Sénégalais yëpp di jaale àdduna waajuram bi nga xamante ne tey Hmm? mooy Omar sewatunu ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana yi gën a kawe si hmm? di masawu mu xam ak suñu yaay ji yaay ñu ngi vraiment ñu ngi jaale Sénégal yëpp di leen xamal ne rek yàlla na ko yàlla suñu borom yërëm te ko àjjana yi gën a kawe mu nekk lu tiis mu nekk àdduna moo ñax hmm? mais noonu la nag àdduna demal maa ngi ñëw rek la moo fi am solo ba tax na ñu ngi jaale suñu papa jooju yàlla na ko suuf oyof loolu lool lool ci kawam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa hmm, tey moom la ñu ubbee nuyoo ko doomu aadama yi nuyoo ko àdduna nga xamante ne àdduna moo demee noonu bu loolu weesoo ñuy ngi santaat ak ngërëm rek te xam ne àdduna àdduna nii la nii la àdduna nii la euh, tey nag ki ñu invité mooy ki ki ki ki jare invité ki nga xamante ne sa xel dem ci rasulillah